maa lay ziar. waaw ah, ñu yal na yàlla nangu ziar. te euh, loo wax ci combat. waaw yal na yàlla di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu si euh, jàmm ak salaam. yàlla may ñu si euh, yaatoo yaatu. ñu koy yéenal guy gi yàlla ko yàlla defal koy ñaanal tey ndax na ko ndam li dëgg yàlla dëgg yàlla waaw. confiance bi ngeen di dégager moo waaw nit moom da ngay sabablu rek lépp lu war boo ko defee nga bàyyi sa bopp ak yàlla sunu borom. après da ngay jël lépp delloo ko yàlla rek dañuy dellu di ñaan yàlla rek yàlla ñu yàlla may ndam euh, jaam nag moom da ngay sabablu comme ni ma la ko waxee guy gi début combat bi ba tey ci axe rek la ko teg. li mu waroon def yëpp def na ko wax dëgg yàlla euh, fu mu toll nag dañuy toog xaar bu ñu demee si làmb ja Reug Reug xam ne la mu jàppoon ne loolay xew loolu du xew si kàttanu yàlla ak mbaaxam. waaw waa Thiaré dañuy xam ne dañ leen woo si fair play rek si non violence lañ leen woo. ñu ñëw ak jàmm ak dal ñu bëre ko si jàmm ñu daan leen si jàmm ak salaam ñu ñibbi si caaree si jàmm ak salaam ñu loolu lañ leen fa lañ leen di woowee foofu kese lañ leen di woowee rek rek day xaar waa caaree dañuy xaar tey géejuwaay moo aye waaw géejuwaay moo aye waaw noonu la demee grave ziar ñu ngi delloo ziar nga wax ci làmb tey waaw dara ñu ngi sant yàlla rek xam nga di ñaan yàlla guug yàlla na ko yàlla may ndam parce que guug ma bu ko mérito mérito na la ëpp loolu aussi borom baax la dañ koy ñaan yàlla yàlla mi am ndam yàlla na ko yàlla may ndam rëg-rëg nag gis nañ ko xam nañ ndaanaan la day bëre ñëpp xam nañ loolu mais nit ki doomu aadama même bu dul sa adversaire pour adversaire boo xam ne ngeen di bëree a respecté ñoom Ama Baldé mi xawoon guy ñoom Siteu ñi xawoon guy gi ba ñu jógee ci làmb am na ñu naan guy gi mënul bëre 2 minutes ñu koy ñoo bëre par guy gi daan lañ ci loolu damay ragal guy gi door ko mu këpp loolu dong laa ragal ci làmb ji du leneen. su ma tey nga jàpp ne dana am lu ko bett. tey dina am lu ko bu neexee yàlla suñu borom yàlla mi am ndam nag yàlla yàlla may ndam parce que ko mérito grand bu baax la barke Serigne Touba du ay caaxaan grand bu baax la waaw fii la dëkk si bi sama mag lay àndal aussi xam nga donc moom dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal ndam Reug Reug na day xaar rey xaar ni ay moromam xaaree moom noonu lay xaaree te dina xam lépp dëgg la bu neexee yàlla si borom yàggatul yàggatul léegi nga gis mu ngi ci biir di waaj ay mbokam ak ay am di jàmmam dañ koy ñaanal yàlla asigna bi yëpp yëmbal gàddaay waa ñëpp dañ mobiliser dem stade ñaanal ko te yàlla tax parce que borom baax la waaw yàlla mi am ndam la yàlla ko yàlla may ndam loolu dong la du leneen ñu ngi lay jaajëf bu gënee ci ñun te bu gënul ci ñun yàlla na ko yàlla defal ba mu gën ci ñun mu jox ñu ko ma waxtaan ak coach Ngay ñoom grand ak ñeneen mu mel tey am na gëm ngeen ni booy bi da loolu lañ gëm ah loolu lañ gëm wax dëgg yàlla ñaan yàlla donc jàmm bi moom boo amee gëm-gëmam tamit day ñaan yàlla tamit doole ji du ci yàq dara loolu lañ ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam lu seddu guy ci barke Serigne Fall ñu daan rëg-rëg waaw. lan nga wax waa Thiaro yi question boobu yàlla. waaw Thiaro yi su may jarbaat lañ dèjà ndax am naa fa su ma mag bu jigéen fa lay sëy nañ ñëw ci jàmm xam nga ñibbi si jàmm seen bërëb daanu xam nga ñu njibuwaat ci jàmm incha allah bu soobee yàlla loolu lañ leen di ñaan incha allah di wax waa Guèye ñu teel a génn ñoom ñëpp fees stade bi dara incha allah di leen nuyu di leen ñuy wasaare Guédiawaye info you know me ok waa daja gaynde gi ñu lay jaajëf Issa ñu dem xool président bis jour ji xam nga di ñaanal yàlla suñu mbër yàlla may ko ndam waaw mu naan moo def mu sëgg lan nga yëg moo waaw pression xam nga stress waaw ak xam nga rek bëgg ndam quoi waaw bëgg ndam ak pression bu ngand nag waaw waaw. tey bi gis ko ban état d'esprit nga ko gisee. la ma waxoon depuis le début macha allah newoon naa meilleur guy gi ñëw mais tey yaakaar naa bu sumee ko dinañ xam ni lim lim war a indi la indi yàlla mi moom ndam nag yàlla na ko yàlla may ndam waaw. ñu gis ne leen convoqué à 17 h euh, dem 17 avant 17h. loolu làmb la ñun ñu xaar loolu parce que boo xaaree mën nga tardé dañuy teel a dem incha allah rabbi waaw loolu lañ bëgg de waaw dañuy teel a dem. non xam nga bu ñu la nee 17h da la faa war a fekk am nga droit dem avant 17h pour bañ parce que doo tardé rek dañ lay dagg te xam nga rek xaalis bi tamit moo tax booy di bëre il faut ñu préserver lañ seen xaalis mbër yi moo tax dañuy fexe teel dem stade pour bañ a tardé waaw dañuy éviter daal ñu bañ ñoo dagg dërëm daal la ñu bëgg instant bi ci combat bi waaw. bu bàyyi la nga lancer benn message di wax nag fair waa Géej waay waa waa Thiaroye ñoo bokk ndey ñoo bokk baay comme ni ko waxee woon Reug bu bëreewul ak waa Géej waay ñun waa Géejawaay dañ koy supporter waa Caaroy yi bu waa Géejawaay bëriwul ak ñoom bu guy gi bëriwul ak ñoom am na fa ay supporter ñoo bokk ndey ñoo bokk baay feet la pour senegal ñu ngi woo ñëpp ci fair play affaire bi moom sport la làmb la waaw day jàll yeneen bis ñëw combat royal mi ngi suñu kanam yeneen combat yu gën a mag mi ngi suñu kanam kon lii làmb kese la ñu xam ne lu am rek ñu xam ne yàllaa ko dogal ñu xam ne noonu la war a demee li am solo mooy ñaari mbër yi pare nañ am nañ fulla am nañ fayda ñu def loo xam ne amateur yi ak ku bëgg lamb di ci kontaan loolu rek moo am solo mais ñu ngi woo ñëpp ci jàmm ak salaam di ko di ñaan yàlla commencé ko ci bisimilah àggale ko ci alhamdulilah di ñaan yàlla suñu mbër guy gi yàlla may ko ndam bu sedd guyu waaw loolu la ñu ñaan yàlla. bu fu sori waaw. confiance bi moo jaaxal ñëpp. non man kay confiance bi ko am guy gi moo ko njëkk a wane supporteurs yi tamit ñëw gis ko topp guy gi guy gi démb ba tey nekk di yëngal. billaay walaay da koy dóor mu daanu waaw rëgg na ko seeraas la na ko seeraas day dee rek. di ñaanal guy gi ndam di ñaanal waa géej waaye ñëpp jàmm di ñaanal yéen tamit jàmm liggéey bi rafet na loolu waay. waxtaan bi doon wax. macha allah macha waajur ñaaral xare leen àjjana di ziar supporteeru guy gi ak suñu grand guy gi waaw. mu naan lépp yemb na. li des ngeen dem ci combat bu bëriwul moment bi lan ngay yëg yow mi ànd ak mbër. waaw instant moom wax dëgg fi ndam rek moo may xeeñ instant yii nii incha allah rabi waaw dinañ am ndam bu sooba yàlla lépp daal teg nañ ci loxo yàlla ndax yàlla rek moo am ndam moo mën yàlla nañ yàlla defal ndam mais mbër mi moom pare na moom waaw mi ngi ci pare na ci entraînement yi na ci contact bi physiquement pare na mystiquement lépp instant yi lépp nice daal di ko ñaanal yàlla ko ndam ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm incha allah rabi. mais ngeen di dégg ndaanaan mel ni Reug Reug mais confiance bi moo jaaxal waaw rëg-rëg mënul nekk ndaanaan ci kaw guy gi rëg-rëg daa dogal gars dañ ko xam ci mbabatu séeréer mais guy gi fii Sénégal ñëpp xam nañ ko ci mbabat guy gi amul lu mu jëlu ci làmb barke Alxuraan ku daan Ama Baldé rek daan Siteu daan Tyson de nees Basoka daan Robert Junior ak ñeneen ak ñeneen kon kooku rëg-rëg waru laa jaaxal rëg bu xeexee ñu duma ko su bëree ñu daan ko incha allahu rabbi waaw. ñu maa leen di yow yaay kan ci guy gi. man maay Fatou Sall bu sëñ Babacar di jigéenu guy di yaayam di lépp macha allah daal. di ñaan nag yàlla tey mi nga xam ne rek moo mën a maye ndam jalla jalaalu azakamal yàlla nañu yàlla may ndam comme ni ñu ko daan maye. rek rek nag moom naagu na ndax àdduna dañoo mën a jëlee fi mu ne nii dañ ne mbër mu doy waar la waaye ca ña koy wax waaye ñun doyul waar ci ñun parce que nit la rek te du paase nit te mënu fee def lu fi mbër deful moom mi ngi doog a dugg ci làmb. arène bi ñetti combat lay doog am ci guy gi waaw yàlla nañ ko daan ci barki ya rasulallah moom nag damaa gis moom buy woote ñun lay woo waa Jonwaar waa Ñoojoor waa Falya mais tamit yaakaar naa balaa ngay maye feneen da ngay may sa bopp ba pare moom lébu gi muy wax ñun dañ koo doon ba pare di làkk lébu ndax làkk lébu mun ta paase ngay làkk séeréer ñun sama doom capitaine Fila Tourné la kon li may wax lu ma xam la Ndakaaru laay gisee tali mais du jënd ma dëkk. du falya gi nga xam ne sama yaay fa la dëkk du munde bi nga xam ne sama maam bu góor fa la dëkk. kon da ngaa jàpp am fa dara. laa ilaa moom bu jëmee ji ñun lay ñëw moo tax mu ñuy woo waaye nag yaakaar naa balaa ngay may keneen daa fekk yow sa dëkk daa tëggu tey géejawaay dafa soxla ndam tey géejawaay seen doom mooy bëri ki ñu am démb ak barki démb tey doog a ñëw kon guy gi rek guy gi kese duñ ko booleeg keneen amuñu lu ñu leen lu ñu ragal yàlla nag. mooy borom ndam muy jalla jalaalu asa kamal ñu ngi ñaan yàlla ñu may ndam ci barki ya rasulallah loolu la rek eh, parce que nit gisoo gis kenn koo xam ne yaa may sa bopp ku dul may sa bopp la yàlla may nga jël mais dañuy ñaan yàlla moom mi nga xam ne mooy buur mooy bu mi yàlla nañu may ndam yàlla nañu may ndam ndax nag mbettel nag man naa am te toujours mbettale am ci biir Sénégal xam nga lu tax coupe bi dañ ne woon du ñëw Sénégal coupe bi dañ ne woon du ñëw Sénégal nañu xool foofu rek mu neex kon yàlla nañu am mbetteel boobu nag tey ci guy gi. lan ngay yóbbante waa Thiaroye. ah nañu pare nag ndax géejawaay pare kenn desul. kenn desul waa géejawaay kenn desul amul dara lu ñuy ragal. te tey la ñuy xam ne wàcceel ci suuf waa géejawaay ko moom ba mu neex. la dañuy sangu ci géej gi. di ci sebet ay dugub di ci naan ñun juróom-ñaari guux doyuñu. barki Seexuna Tijaan ndam rek jaa ngeen jëf. soxna si voilà. Gàmbi. tey loo wax bi Gàmbi nga dëkk. Gàmbi lañ jógee ñoo support si guy gi te incha allah ne am ndam borom baax la kuul na amu benn problème moo waral suñu jógee Gàmbi ba ñoo di ko support di ko ñaanal ndam rëg-rëg na waxaa moo bari. guy gi moom luñ ko ñaanal suñu wax du bëri ñu koy ñaanal ndam rek mu newuñ wax rek rek moom wax la mu ne waaye yal na ko guy gi doo dóor yoo xam ne ba fansa mi néewi si kaw maa la wax nii. su ma loolu tiit ci rek rek. man rek rek mënu maa yëngal guy gi bëree na fi taaku saambu ne te loo jaaxalu ko naa rek rek waru ko mun a jaaxal sénégalais ñoo gaaw a fàttale waaye bu ñu doon fàttale ko ne xam ne guy gi du bu ndaw rek rek mbapat la mu ne waaye lamba ji tey na nga ko dóor ba mu du xaamee fu mu jógee sax fu mu war a voilà xam ne guy gi da koy lu métti. waaye duñ def dara. rek rek day peer bu ñu eggee. laaj sëñ bi sëñ bee ngi ni taxaw. ah di ñaan yàlla daal ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm ñépp am jàmm daal la ñu yàlla defal ndam barke borom Tuubaa xaaral dem. bi ñëw fii ndax mbor moo xam ne la mbor bu wàccee boppam civilisé te baax boo ko gisee ñun buñ ñëwee moom dañoo foog ne sax kii du guy gi man nag bi mooy suma première fois pour ma ñëw fii bàyyi sumay soxla yee ñëw waaye guy gi moo ma ko jaral waaye nag victoire rek ci kaw ci kanam dem daan ñib si ñëw ak suñ victoire rek lañ am guy gi rek ci kaw ci kanam waaw ci lu baax ñun gaam bi daal suñ mënoon a ni fukki kaar ñu wag moom waaye ni mu demee rek waaye Gambie daal gën a wàll yëpp guy gi waaw. waaw kontaan si yéen. ça va soxna si. ah ki ko doon jug day soxna. Ah, daal yàgg nañ koo waaj macha allah te suñu yaakaar nañu naan moom fii lay ñibbi si waat incha allah. Euh, rëy garaaw de. non rëy rëy rum ko gën a ko faale wuñu ko sax. waaw dam set witti voilà ba léegi sa yaakaar na ambiance moom moo nekk noonu voilà le champion moom moo génn noonu ci kaw vraiment muy affiché une forme physique extraordinaire di saafonte ak nga xamante ne ñoom ñooy ay supporter am ngi noonu moom le roi du simpi mi ngi noonu di saafonte ak ay supporter moom guy gi vraiment mi ngi noonu di affiché une forme physique extraordinaire di wane ni pare na macha guy gi ngi noonu Issa Mouta ak ay supporter am ak ay ñoñam xool fi nga xamante ni vraiment moom mooy euh, ci balcon bi vraiment mi ngi noonu war ni yaramam tàng na il est prêt pour ce choc pare na daal di sëgg ak ki nga xamante ni moom mooy Reug Reug yaakaar naa d'ici quelques heures ci arène nationale bu Pikine mi ngi noonu vraiment Issa Mouta ak ay dëkkandoom ak ay am di jàmmam guy gi mi ngi noonu tey affiché li nga xamante ne mooy forme physique bi nga xamante ne moom la doon nëbb dina préparation bi yëpp ñu gisoon ko xaw na loolu durant toute la préparation xawoon na lëlu donc mi ngi noonu di saafoon ak ñi am te ñooy ay ñoñom mi noonu le roi du simple hyper confiant on gugi hyper confiant di affiché benn confiance bu extraordinaire vraiment mi ngi noonu vraiment mi ngi noonu bu extraordinaire tey bu ko gisee mi ngi ak ñoom malal ak ay mbokkam ñu dar ko am lu muy wax ak ñoom le roi du simple mi ngi noonu l'enfant de Thiénaba le leader de l'école du Mor Fadam mi ngi noonu di savant ak ay ñoñam guy gi mi ngi wax ak ñoom am benn fas bu weex bu takk ca loxo ndeyjoor ba du ko ñebe la ko takk mi ngi noonu yor benn morceau bu weex dend ak ñoom malal vraiment ambiance extraordinaire ici chez Gouye Gui très cher internaute pour le compte de son combat contre Reug Reug prévu dimanche 2 février à l'arène nationale de Pikine et pour le moment vous apercevez le leader Gouye Gui le roi du Simpi qui est sorti euh, pour euh, se mettre en communion avec ses supporters vraiment oto yaa ngi nuy taxaw wane ci kanam tuuti rek ñoom dinañ départ jëm fi nga xamante ni mooy ci arène nationale ki mu dendal mi ngi yor benn butéel am benn saafara bu xaw a ñuul di waxtaan ak ñoom malal guy gi mi ngi noonu di waxtaan ak ñoom asiko yi ngay dégg noonu à côté kii li muy yëg mooy xoolal day génn gis ay nit kontaan mais kontaan bi day ànd ak xel dal parce que bul gis si kaa si kanamu ni rek il faut guy gi am ak mental parce que bañ a demee xatar demee mbàppu parce que technicien lay bëreel tey warul da bàyyi dara man sama gis-gis. sant génn na taxaw ci balcon bi état physique waaw noonu baax na gisoo xaw na lu bëri lu rees gisoo ni mu tolloon mëngal. ak léegi yaa ngi gis épaule yi gis avant bara gis trapèze gis biceps waaw sa xel day dal quoi après kii gagné yàlla rek moo ko xam mais na nga wane jom wane fulla wane ngor wane entraînement bu leer quoi ñu xam ne yow foo lool doo dong moo si am solo. bisu tool nii ko war a a gagné. tool bi bis bu mag nagu magasee daanu mais xel mu mag a koy liggéey waaw te yaakaar naa staff bi am nañ ko ay ngay moo nekk si ginnaaw guy gi ndaanaa koy dar. waaw tey war naa bëreel lu bëri parce que per Mor Fadam newu fi tey tey gasal nañ ko pax boo xamante ni bu ko gañee père mu ngi fi mu ne waaye day kontaan te tamit li mu si mébal dafa neex yàlla naa gañ affaire bi ba jox ko père Mor Fadam ko ko ñun ñëpp Guédiawaye dañ koy rafetlu moo waral sama teewaay tey jii mais bu waxul woon Mor Fadam sax mën naa fi bañ a ñëw. tey làmb la doo xeex la wala du ko bëree loo. ah da nga ko xeex la wala da mënoo koo daan sans xeex Reug Reug bëreekat la boo ko bëggee tooñ da nga koy duma daan ko mais su bëggul duma bu Reug Reug mënu ko daan parce que rëg-rëg bërekat la te tamit guy gi rëg-rëg bu la njëkk a bëre rëg-rëg du la njëkk a bëre rëg-rëg buy bu laalee fii bu baaxul day laali fële bu baaxul mu laali fële bu duggee du génn te jeexul waaw kon balaa dugg da ngay dugg parce que bëre siburu la am na fu mu lay àgg docteur du la faj te bis bu ma ko fa àggee dama koy buddi maa la wax li mburu lu muy bañ nga mbiskit mburu mbiskit du dem si soos mais mburu ñaar rek lay war a bañ poson asib leneen loo def si mburu mburu dem te guy gi mburu la. rek lu muy bañ. non rek rek dafa bëri qualité rek rek mburu la moom it de eh boo bañee ndaanaan doo daan ndaanaan man l'islam bugguma loolu ñu duural benn mbër boo xamante ni moo lay may 80 millions. ku fa guy gi xoolal rek rek camp yi mu àgg mbër bëri na lu yàgg egg si moom mu bëree tuuti egg si parce que tournoi bee ko ko may. mais que le rek dina neex dina yëngu de. waaw waaw ñuy sant yàlla wax supporters yëpp ñu bokk dal quoi. bokk nday bokk baay ba xam ne jàmm gën ak caaroy ak fii benn la quoi waaw après dañ koy nettaliwaat rek ñu fee daan lu gars yi daanul kon nañ gën a dar rek am yar am teggin respecté seen i booy koo si gis tamit muy yàqule benn affaire faral ko ko parce que Sénégal ñun ñoo ko moom fuñ ko yàq nañ defar siège yi respecté suñu bopp bañ a yàq siège bañ def dara mais jàpp yàq siège moom bu ne policier yi laa ko lancé jàpp ràpp tëj rek léegi mu jeex parce que nit koo tëj boo ne ana Lamine ñu ne Lamine tëj nañ ko lu mu def siège keneen du ko defaat mais nañ jàpp ràpp rek moo siy génne. ñu lay ñoom Baro na noonu sol mooy Sénégal bi ak. casquette bu blanc bi ñu ngi noonu di préparer pour dem fi nga xamante ne mooy arène nationale. voilà ñu ngi noonu. guy mi ngi préparé pour départ jëm fi nga xamante ne mooy arène nationale bagage yaa ngi noonu vraiment ñu génne li nga xamante ne mooy cumukaay pour waajal départ. jëm fi nga xamante ne mooy arène nationale bu Pikine maanaam mbër moom la ñuy saraxe ci fir wi bëri na trop mi ngi noonu Issa Kaay moo ziar naa. jaadum taw feex waaye làmb ji comme noonu rek barki borom daal jàpp daan rek incha allah bu neexee yàlla bu bëree ñu daan ko bu xeexee ñu duma ko. loolu yomb na de. guy gi dara du yomb si moom daa pare barki sëñ Tuubaa dafa pare dafa pare combat bi. ko guy naan gis muy pare combat génn média yëpp gis nga ko combat da see nëbbatu dafa liggéey dafa entraîné te ñun ñi ko yóbbu xam nañ ne entraîné na barke Serigne Touba Mbacke bu dee yàlla mooy may ndam yàlla nañu yàlla may ndam rëg ma dax daal mooy leen bu xeexee moom dañ koy duma billaahi bu bëree ñu daan ko barke Serigne Touba Mbacke ñoo ëpp doole ñoo wax ko tàppet la daanu fi kenn ñaari mbër la fi daan ñaari mbër la fi daan daanu may sens yàlla ci barke Seydina Mohamed en plus di sant waa Guédiawaye yëpp parce que ñëpp jàpp nañ ci di ko ñaax mu teey indi bëre indi xeex bu ñu woowee ci xeex ñu xeex ak moom bu ñu woowee ci bëre ñu bëreek moom bu ñu xeex ak moom dinañ ko daan bu ñu bëreek moom dinañ ko daan ci barke Seydina Mohamed. soo gisee sa mbër tey. soo mbër pare na am na sawarte pare na cinq heures et demi lañ ko waxoon mu ñëw stade mais moom pare na yàgg na. te ni mu teel a paree bu demee stade lay teel a pare daal di noppal supporters yi allah waaw. jërëjëf waay. ajab bis bu ñu jaaxal ndax guy gi am na bis bu ne lu bis bi moo ñu jaaxal comme ni ñu ko doon waajalee rek préparé nañ ni ñu ko war a préparé def nañ li war a def lépp di ñaan yàlla suñu borom mu may ñu dam ci kaw Reug Reug. li ma ci jaaxal waa Thiaroye dañu boo leen yéexee doo la am foo leen toog. waaw d'accord ñoo wax ñoom nañ àpp wax ji rek ñoom wax ji lañ am ci làmb ji amuñ ci leneen arawaat ma maa ngi dégg lu may wax mais moom du ma ko tontu damay ma door ko tontu. dama amaguma leen lu may wax moom moom ñoom wax ji lañ àppoo nañ àppoo wax ji rek ba tey tey la Sénégal di xam man bare guy gi parce que ñëpp dañoo jël favori jox ko rëg-rëg sa combat ñu ne guy gi mënul bëre ba guy fii tey la ñuy xam mën mën bëre guy gi tey lañ xam ci kaw supporter yi supporter moo leen ñu dal rek te tamit non violence parce que làmb la ñu fair play ñu dal dem si jàmm ñëw si jàmm rek loolu lañ loolu laa leen di conseillé guy gi aussi tamit ma koy wax mu ne ko na dal def ndànk ba ne ko ciix ba jàpp ko rek daan ko loolu lañ ko sant waaw. Euh, Alaaji Makoura Mbuub laa tudd dëkk Cenaba Seck. Hmm. tey seen doom am bis bu rëy nan ngeen ko waajalee. waaw ñu sant yàlla bu baax julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal euh, xalifa ba Baye Xasan Seck yàlla oyofal yan bi ci kawam euh, suñu doom préparé nañ ko niñ ko war a préparé ay mbokkam ñaanal nañ ko. dañ koy ñaanal bis bi yàlla may ko ndam ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam waaye defe naa ne bis bis bu rëy moom mënatul a jaaxal guy gi. guy gi li ko war lépp ci yaayam ak baayam ak i boppam mbokkam def na ko. ànd na aussi ak ñi mu waroon a àndal ñun ñi nga gis nii lamb du suñu domaine tagg yonent bi mooy suñu domaine ci ay maam ci ay baay ba tey ci ginnaaw xalifa général Thiénaba bu toog Thiénaba waaye dañoo bàyyi suñu lépp ñëw jàppale ko ndax Thiénaba kër gu màgg la du ab dëkk te guy gi Thiénaba la dëkk waaw déret moo ma yëngal ndax maam buubu xari ndaagay maamam ah, moo jur Souleymane Souleymane jur Isaaxa Isaaxa jur ko un amari ndaag maamam xeex ci laada xeex mbooyo xeex sandukumaana xeex buli jama xeex masar xeex mbiloor xeex benn buntu xeex sàq xeex war a fonde xeex añum tongel le 11 février 1875 mu xeex Samba Sadio sanc Canaba 1882 kon guy gi bis dootu ko jaaxal ci àdduna ndax maamam dañoo xare ba sampu diine Canaba ne àll ba all allah ba newoon na diine maamam deret ak la ko jëndee waaw loolu la loolu la diine maamam diine ji mu yor deret aki i bal la ko jëndee deret ak i bal la ko jëndee sanc Thiénaba 1882 guy gi di doomu Thiénaba opté doon mbër bu njëkk làmb wala woon léegi nag métier la ndax teral na ci ay baayam teral na ci ay mbokkam teral na ci ku mu xam dañ koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw di sant yàlla bu baax di yàlla bu baax di julli ci Seyduna Muhammad di ziyaar nag suñu sëriñ sëriñu guy gi muy sëñ As Seck borom digal sëñ Adama Seck baa Jibril loo ngi ci biir di deretu maam Amari Ndaak ñun ragaluñu dara ci bis bi yàlla rek moo ci des yàlla mi nga xam ne moom moom ndam yàlla nañu jox ndam ci barke sangu-sang yi Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca la heure sàngam ñëwal boo bañee tooñ nit ki da ngay teel a dem waaw loolu yëpp ci fonk ci euh, fonk heure la rek ak respect bi ñu leen jox waaw macha allah ñun daal pare nañ daal ci côté yëpp pare nañ waaw ñu lay sant bu baax la waaw jërëjëf. borom bi. nga naan day ñàngal rek loo wax ci bés. non ñàngalu de damay bañ damay bañ gars yi gars yi gars yi gars yi. loo wax waaw bés moom incha allah ndam lañ yaakaar quoi ndam rek lañ yaakaar. waaw yàlla baax na yéen ñu yàlla may ndam rek lépp ñu ngi koy wér ci yàlla ko waaw ñu ngi dem daal sàkku ji ndam lépp ñu ngi koy wér ci yàlla waaw loolu baax na loolu laa ci am la may wax quoi voilà jërëjëf. voilà ba léegi. mais dayu combat bi ci yéen ak enjeu bi. non xam nañ importance li ñu war a def yëpp def ko mbër mi pare na ñun ñu waroon def yëpp def na ko léegi dañuy ñaan yàlla mi yor ndam rek yàlla yàlla may ndam li sedd guy incha loolu du nekk pression ci loolu la. guy bi lu mu wax du nekk pression ci yow. waaw pression la du pression. yóbbu naa guy gi yàlla def mu am ndam xam nga yóbbu naa guy gi tamit xam nga mu kii mais combat bi daal li ñu war a def yëpp def nañ ko li si des yàlla moo si des dañuy ñaan yàlla mooy ndam sedd guy dugg si bismilaahi rahmaani rahiim génn si alhamdulilaahi a essayé tey nan ngeen tuddee loolu ak nan ngeen bi parce a départ pour ñu ngi nekk ndax den ak borom kaftaan bu bleu bi vraiment ñuy nekk seen i dernier bagage rek baro am na lu muy jël di teg ci kaw oto bi pour nekk ci dernier réglage daal xaar seen mbër départ guy gée ngi noonu fausse guy gée ngi noonu mu ngi noonu sol uh, benn koppati rango na Senghor léegi sol benn koppati waaye dugaat na ci biir am ay bagage yoo xamante ni uh, moom lay def mu ngi leen dernier réglage mi guy gi pare na ci kanam tuuti rek dina génnaat daal dugg ci oto bi yaa ngi dégg coow li noonu ci biir kër gi Issa ambiance bi également ñu ngi noonu Baro Baro mi ngi noonu aussi dend ak le grand pape ñoom ambulance ñu ngi ci dernier réglage yi am na benn leket gu waaju yor Issa am benn béjjën mu ngi noonu moom mi yére bu verte bi yor benn bouteille ñoom Baro ñi ngi noonu vraiment ñu ngi noonu di waajal seen mbër. tey yaakaar naa liñ fi gis rek mooy li ma wax nañ jàpp ni tey euh, sur le plan mystique donc ñoom négligé wun benn détail pare nañ ci côté yëpp man ñu ngi noonu di wàcc pour dem euh, fi nga xamante ni moom mooy arène nationale guy ngi noonu vraiment di wàcc saa borom kaftaan bu bële yaa ngi koy seet noonu yaakaar naa moom bu génnee rek. moo nekk ci kanam guy waaw guy gee topp ci ginnaawam Issa ba mu ko gën a mën a gën a ñoxol sax dina baax ñu noonu waa ji leket bi ak ay bouteilles ñun également ñu ngi waxtaan ak moom ñu nekk ci le dernier réglage pour jëm fi nga xamante ne moom mooy arène nationale bu Pikine guy gi mi ngi noonu di waxtaan ak ñoom nekk mu doon moment boo xamante ni euh, moment bu am solo la waaye itam moment bu déterminant parce que mbër buy génnee nekk une manière daal di tàggatoo ak ñoo xamante ni ñoom ñooy am di jàmmam ñoom ñooy ay dëkkandoom dina am benn émotion bu mu dégagé te yaakaar naa à partir de su moment lañ mën a natt li nga xamante ne mooy le mental du mbër mais koo xool xam ni la mental fort am na lu muy tari mi ngi noonu di wax ak Barok Issa am lu muy tari ges na am lu muy réglé waat ca ginnaaw guy ngi noonu le roi du simple mi ngi noonu le tombeur da amaa Baldé mi ngi noonu le tombeur de Siteu mi ngi noonu le tombeur de Bébé Saloum mi ngi noonu champion bu mag baa ngi noonu le tombeur de Ness de Bazouka de Mbaye Diouf et tant mu doon champion boo xamante ni am na fi tàkkusaan bu nekk bëree na fi tàkkusaan bu nekk ba tey mu dégg daali nga xamante ni kenn dooru tudd tey mën naa ni mbër yu mag yi te duñ ko lim le grand champion mi ngi noonu digganteem ak Reug Reug ci kanam tuuti mu war a dem daal di jàkkaarloo ki xamante ne mooy xale caaroy bi xale bi nga xamante ne dafa mànd ci lutte pure xale bi nga xamante ne ah, dafa mànd ci lutte simple waaw xale bi nga xamante ne dafa mànd ci lutte pure bi nga xamante ne dafa mànd ci lutte simple dañoo moom la war a dajeel muy Reug Reug bu caaroy doon lamb ju rëy ndeysaan xale yaa ngi noonu di sifflé di yuuxu bi gi rangoon na sengoor gu weex ga sol benn koppati bu weex ma ngay wax ak ñoom am ay tegtal yoo xamante ni nga koy wax di ko déy mu koy def benn par benn nga gis ñoom tafa buuj également ñu ngi noonu dar ko mu takk benn fos bu weex ci poignet wu loxo ndeyjoor bi bii jee ngi noonu l'ambiance ici chez Guigui avant son départ à l'arène ñu noonu Issa Kompaté bi sobal na ko ki nekkoon ci buntu bi ngi taxaw Issa mooy sottee ko ay butéem ñu noonu di sottee ko ay butéem butéelu yaa ngi muy sottee ko la ilaha mi ngi noonu sottee ko ay butéelam di waxtaan ak ay mbokkam guy gi mi ngi noonu mi ngi noonu di sotteekoo butéel le roi du simple mi ngi noonu le roi du simple mi ngi noonu xaadim nga voilà mi ngi noonu di sotteekoo ay butéelam guy gi ngi noonu génn mi ngi sotteekoo ay butéelam sotteekoo ay bitéelam am na benn soo buñ ko jox. maa ngi daay lañ ko jox mu ngi koy sottee ko mu ngi sottee ko soo buñ ko jox sott na ca bopp ba sott ci turoon na sooba yi duggi turoon na sooba ñu noonu ñu xoolee loxo yi da koo affaire wax ay ñoñam guy gi wàcc na Issa mu ngay génn mi ngi noonu Issa am na benn mbuus bu weex bu xonq buñ ko jox am yu ci nekk ay marakis lay ndural Issa mel na ne ay marakis yu zone moo nekk ci mbuus ma guy gi génnee na marakis yi mu ngi ko téye marakis yu zone yi téye na ko xëy làmb un sport très mystique xëy làmb Issa mi ngi noonu yor maraakis ci zone Issa ma ngay wàcc Issa gën ma koo jegeel waay ma ngay wàcc gën day dugg oto bi ma ngay wàcc Issa guy gee ngi noonu wàcc na day saraxe ji Issa day saraxe ji soow ci loxo càmmooñ nit ñaa ngi yuuxu mi ngi noonu am na maraakis ci zone yu yor mel na ne xam toll xoolee bëri également du simpi qui est en train d'effectuer ses derniers réglages à travers des offrandes mais également tout pratique la ilaha ngi noonu di sarax le leader mi ngi noonu ma ngay saraxe gi géeng di saraxe la ilaha illallah la ilaha na bayan pour daal di gaa yi yuuxu ko xool pare ndeysaan ma nga dem ñu koy ñaanal ma nga noonu ñu ñaanal le roi du simple muy la ilaha illallah wax ak borom borom xaftaan bu bleu bi mi ngi noon di ko ñaanal mi ngi noonu di ko ñaanal bii gee noonu di wax ak moom reetaan na quelle confiance mu ngi dégager ndeysaan mi ngi noonu saabante naag Issa ngi dugg ci oto bi bii gi dugg na ci oto bi Issa dugg na ci oto bi ndeysaan génn laa ilaha illallah, le départ du roi du Simpi, du leader de l'école de l'île Morfaram, vers l'arène national en prélude de son combat contre Reug, le champion de Thiaroye. Gouye Gui mu ngi taxaw am lu mu wax ak ñoom Baro ndeysaan Baro sax sa sa entraîneur soo mi xam na soo mu tëjoon tëj na ko. La ilaha illallah xorom mi ndeysaan moom la sànni ndeysaan